ils plébiscitaient un homme. Mmh. Ils ont plébiscité le premier ministre Ousmane Sonko parce que tout simplement ils ont ils ont ils ont vendu je dirais pas du vent aux Sénégalais. ils ont vendu mhm. voilà ils ont vendu un projet. Jusqu'à présent nous attendons nous à ce que ce projet-là puisse être déroulé mhm. parce que à, à notre avis c'était un projet prêt à l'emploi mais pas que ñu ñëw di ñëw ci ay. ay réduction des comptes ay rapports et tout je suis d'accord qu'il faut la réduction des comptes mais je suis également d'accord qu'il faut ici et maintenant dérouler ce projet-là. Uh ah, -huh. Ah. avant qu'ils vont vendre projet wax nga ko les rapports euh, président Diomaye sàkku bokk na ci li mu njëkk sàkku ah, ñu fësal rapport yi nga xam ne Cour des comptes IGE OFNAC wane na ko liggéey na ci diggante 2019 ak 2023 euh, ban volonté nga ci gis leeral. wala am na looy njortu ci suuf. xam nga ñoom li ñu war a njëkkoon a liggéey mooy lan mooy dérouler projet bi dérouler projet projet bi ñu jaay sénégalais. mais est-ce projet bi war ñu def état des lieux. xam fan lañu war a tàmbalee ak ñan a liggéeyal. l'un benn dàqu dàqu moroomam voilà l'un n'exclut pas l'autre mm-hmm. def reddition des comptes <laughs> mais en même temps également ñu déroulé le projet parce que ils ont été élus parce que y a ce projet la qu'ils ont vendu au Sénégalais dañu jàppoon ne projet bi ñoom bu ñu toogee rek déjà il y toutes les solutions yu nekk ci projet vous avez à tout à tout et que les solutions étaient déjà là maintenant bu ñu ñëwee tey nag di au lieu ñu wax ci projet bi ñu ay réduction des comptes c'est autre chose la réduction des comptes tout le monde est d'accord mm-hmm. que mënoo gérer gestion suñu deniers publics yi te doo rendre compte mais à côté de cette réduction des comptes il faut également dérouler le projet qui nous permettrait bien ah. évidemment de pouvoir d'alléger le pain de la ménagère mais aussi de trouver un emploi mhm. aux jeunes. dinañ ci gën a xuus après mais euh, révision des comptes dafa am solo parce que boo seetloo euh, dans le discours d'Ousmane Sonko ça revenait très très souvent li ngeen sàcc di ngeen ko goxi di ngeen dëngal di ngeen ko delloo li ngeen lii di ngeen laa wax yooyu noonu c'était sur un ton menaçant tey jii nii ils sont au pouvoir ndax jàpp na boobu lañ nekk ba tey wala euh, la réalité du pouvoir comme on dit ils se sont rendus compte que opposition au pouvoir bokkul. effectivement ni ma leen gisee euh, dans les actes posés et dans le verbe également. Mm le le l'homme Ousmane Sonko passe de populiste à à à serein à mhm. on a vu qu'il est beaucoup plus modéré. Ouais. dans son discours et dans les actes qu'il pose et c'est autant pour le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar parce que man j'avais entendu rendre hommage à Boun Abdallah Dionne rendre hommage à Maître Sidiki Kaba Ousmane Sonko opposant c'était pas cet homme parce que ils ont été confrontés à la dure réalité du pouvoir l'opposition et le pouvoir du benn mhm. li nga fogoon moo ne ci biti ba ñu ñëwee ñu tegal leen dossier Sénégal ils ont compris ils ont compris ñoo fi waxoon ne soxlawuñu FMI mhm. les vidéos sont là tey ñoom ñoo dem Washington DC di wax ak waa FMI président Macky Sall yàlla def mu co-présider wala modérer li nga xam ne mooy rencontre boobu. <laughs> donc pour dire simplement que quand on est en dehors du pouvoir on peut faire dans le populisme mais boo nekkee ci pouvoir xam réellement li am. di nga am beneen taxawaay te taxawaay bu bees boobu laa gis ci ki nga xam ne mooy le premier ministre Ousmane Sonko. Ah. gis ko tamit ci nga xam ne mooy la président Bassirou Diomaye Faye. Ah, par rapport toujours au au rapport euh, ku ci mel ne Aminata Touré ne ñu ngi wax naa dañ ko épinglé nee na sax li ko waxee na la porter plainte euh, mais fi ma bëgg a ñëw mooy moom nee na il n'a rien elle reprocher. mais par contre am na ñoo xam ne dans Benno Bokk Yaakaar foog ñu fouiller seen gestion elle a même parlé euh, des fonds Covid 19. loolu tey jii ndax jàpp nga ne euh, demande sociale la wala euh, leeroon na bu pare su ci sàll même bu ñu bëggee def loolu. loolu du sur priorité. ok la priorité du moment mooy que le projet li ñu waxoon ci projet bi nañ fa yegg. nañ ñu saafaral li nga xam ne mooy panier la ménagère. Mhm. dañ doon taxaw di wax naan contexte mondial bi. avec pandémie Covid 19 avec guerre bi am Ukraine ak Russie loolu ak yeneen ak yeneen pour du dollar et cetera moo taxoon la président Macky Sall mënut a wàññi prix yi mais il a réussi. daf am prouesse stabiliser maintenir le prix des denrées de première nécessité et quand on disait ça ñoom dañuy wax naa naan ñu loolu amul il faut arrêter de nous parler du contexte mondial. Mm -hmm. aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir waxoon nañu ko ñoom mën nañ ko def euh, rapidement foofu lañ leen di xaar ci projet bi la réduction des comptes wax naa la ko kenn dàqu ko kenn bañu ko ñun ñëpp loolu la ñu bëgg. mais sommes des militants. Mm-hmm. de la transparence que mu leer est-ce que mën nañ gëm loolu yenn sénégalais yi parce que euh, sous le président Macky Sall les rapports publiés les rapports euh, faits par ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo doon gëstu bëri na. mais mosuñ ci dégg benn benn benn benn suite. loolu moo tax xëy na yi ànd ak ñoom ci ci loolu mu leer en fait. waaw xam nga fi mu nekk xam nga président Macky Sall moom wax dëgg yàlla gàcce ngalaama def na liggéeyam dama gën rafetee génn génn bu am solo muy koo xam ne ñëpp di nga ko wax rendre hommage mu dem dem na si jàmm ak salaam bàyyi état bi naam mu ngi ci terrain politique bi ñoom ñi nga xam ne nag fi mu nekk ñoo yor pouvoir bi am nañu sañ-sañ tijji ay rapport am nañu sañ-sañ. de reddition des comptes loolu seen liggéey la ñoom mais dama ne man loolu dàqul également ñu def mise en œuvre li nga xam ne mooy. mais de de des des des jalons yu am solo maanaam administration bi euh, sàkku nañ ci ñu euh, defaraat ko. bañ liggéeykat yi xam seen wareef ñëw heure wàcc heure mais aussi productif ay mbir la yoo xam ne aussi buñ ci tënkoo xëy na d'ici projet bi ngay wax ni dina mën a tegu ci yoon mën a mën a mën a déroulé wu. non ba tey dàqu ko am na ay base yu war a teg avant en fait foofu laa bëgg a waxee. ba tey Mamadou Omar mise en œuvre du projet. ministre yi teg nañ leen ci raay yu wóor. non mais mais loo xam ne loo xam ne dañ ne woon solution la dañu waxoon ne lépp mu ci biir projet bi wax dëgg yàlla loolu jaratul ay concertation jaratul ay pour man ils avaient déjà trouvé wax dëgg yàlla. la magie c'est-à-dire que ils nous ont vendu quelque chose boo xam ne mais à les écouter li yàqu bëri na lu ñu war a defaraat. non li yàqu parce que boo ñëwee sa boo ñëwee ba teg benn R plus 2 foog nga arrangé wu defaat bonnement bu baax euh, ba ba pour mën a mën a yëkkati maanaam doo ñëw rek ne da yëkkati ci kaw fekk na li suuf dafa fënax ñoom la ñu wax mooy li fekk daanaka lu ci bëri dafa yàqu. non non non nañu wax administration la politisation. non administration de ko ci les les les les kii fictif là. emploi fictif emploi fictif yi loolu yëpp c'était sous Macky Sall. xëy na tey am na lu des ci administration muy wàllu régularité et assiduité. ci personnel capital mhm. humain moom. président Macky Sall da ko boole woon ci programme am donc capital humain am na lu bëri loo xam ne liggéey nañ ko ci. kon tey jii ils n'ont pas trouvé un pays nouveau. Mhm. xam nga boo fekkee pays bu bees nga naan damay defar defar mais da fekk pays boo xam ne tey. am na stabilité tey liggéey nañu lu am solo à travers le plan Sénégal émergent boo ñëwee agrégats yi ci fekk da ci war a condenser renforcer dem tey ji mënoo ñëw lépp lu ancien régime defoon nga nekkat lépp baaxul dërëñ sànni fële non non ils ont compris du temps. oui ils ont compris qu'ils ont trouvé du solide fii Sénégal mu ci réalisation mu ci liggéey bu am solo muy wax dëgg yàlla ci ay performance ñoom li ñu fekk dafa la woon yombal liggéey bi ñëw dérouler projet bi loolu la ñuy xaar ci ñoom. Mm-hmm. par rapport ak. Euh,